SFD aussi ndax ndimbal moom na ci fekk loxol boroom man ñii maa ngi insister di leen woo mais nangootuñ ma sax jël maa ngi insister pour ñu dugal sama parti mais dañ ko dagg gis nga sama parti yaay la ñu dugal téye sama bos naan ay suspense ak yu kenn xamul maa ngi insister nag mais ba tey jotuma leen jot naa leen benn yoon ñu ne ma maa ngi kii maa ngi euh, ñu ngi koy dugal léegi mi ngi noonu problème bi nag fi mu commencé fi ñu ma commencé écarté ndax man euh, avant maa nekk en état jël na couronne bi gagné naa miss bi ba mu am ay 5 mois yooyu ma topp leen di leen laaj liñ ma war a jox et tout euh, benn jour si lañ ma woo benn activité fii ma ñëw Dakar jam ñaajo benn euh, activité bu doon def foofu ak Macky Sall je ne plus ban kii la woon léegi bi ñu jógee ci activité boobu ci lañ dem Radisson bu jam ñaajo ñu reer def lépp ak xaritam yi fa nekkoon ñetti euh, ay xaritam lañ daal ci cérémonie boobu la ñu ñëwoon aussi ay xaritu Amina lañ bi ñu reeree toogandoog ñooñu reer ba pare ñu war a dem tëddi ñu ñu yéeg war a dugg suñu chambre tëdd mu ne noonu nañ leen dem ci suite ñooñu ci lañ demee ci seen euh, suite toog di waxtaan man ma demoon euh, Amina ak Alberta Diatta mooy Miss 2019 bi ñun ñett ñoo àndoon bi ñu demee ci surtout ñooñu tamit ñett ñi ñu toogal looloon di reer ñoo fa nekkoon ku nekk toog am kenn ku ñëw toog sama wet loolu yëpp sax euh, liñ naan booy nekkee ci interview pression beeg yooyu di nga am yoo wax am yoo fàtte si la kooku ñëwee toog sama wet commencé di wax man comprendre ma woon sax li muy wax ndax anglais lay làkk te ay anglais am sax leerul ay naar lañu mi ngi noonu si laa jëlee sama téléphone comme xawma yooyu noonu te ay inconnu lañ ci man ñu toog ñu toog noonu mu commencé di wax ba jël sama loxo sax commencé di ma caresser mu jëlaat sama loxo ndànk nekk ci sama téléphone si la naa ne waa faatiment nan ngay toogee ak ay autorité te niiroo leen compagnie waxtaanoo ak ñoom nga sëgg ci sa téléphone di ko manipuler ma ne ko ah man kat li ñuy wax comprendre ma ko en plus kii man li muy wax sax xaw ko mi ngi toog di wax mais man li muy wax daal comprendre ma ko mu ne waa baax na si lañ toogaatee noonu di waxtaan di waxtaan. Uh, ki toogoon ak naa kenn ku góor ki nekkoon ak naa ndax dañ ko ni ma ko démb bi may def interview bi noonu la ma ko kooku waxee mu ne ma maanaam daal dangeen ngeen par couple ma ne ko mën nañu wax loolu ndax ku ci nekk dem nga ci kenn toog fa ku góor ki toogoon ak Amina ne débarrassé table bi nekkoon foofu ne naa yéeg ci kaw table bi fecc loolu yëpp sax nag waxuma ko ci interview bi ndax comme ni ma ko waxee pression beeg yooyu et tout mooy loolu da ngay wax di fàtte yenn yi ñu ne naa yëg ci table bi fecc ma ne leen yéeg ci table di fecc pour lan ñu ne ma yéegal fecc ambiance Amina ne yéegal ma ne ko no du ma yéeg fecc ñu insisté mu jugi ma ne leen mënuma ma yéeg fecc mënu fecc en sama tànk day metti ci lañ toogaatee noonu après man par la suite comme ni ma defoon rek ma sëgg ci sama téléphone di manipuler et tout bi affaire bi jéggee dayoo nag Amina ne ma waa faatiment comme que teniroo kenn compagnie yaa ngi toog sëgg ci sa téléphone ma ne ko waa kon mën naa tëddi ndax après kii ñëwoon toog ci man dafa mer bu dee dem tëddi bi ma toogee man kese Alberta toog fee di waxtaan nag kooku Amina tamit même chose bi ma toogee ba affaire bi jéggi dayoo ma ne ko kon mën naa jël sama carte dem tëdd mu ne ma waa comme que amoo fi njëriñ kay teniroo kenn compagnie mën nga tëdd si laa jëlee carte bi dem tëddi bi ma tëdd jee ba ay trois heures du matin yooyu la Alberta ñëw dugg si. indi benn montre en or la xawma lan di ma ko wan loolu yëpp waxuma ko ci interview bi te dama koy réccu mais comme que wax dafa jot moom nañ wax lépp mu leer ci la Alberta ñëwee ci chambre bi indi montre en or xawma ne ma gis nga lii de kooku moo ma ko jox nee na mën naa génn ak moom xawma mën naa nekk ak moom te Amina sax du ko yëg lu mu bëgg mën naa ko ko mën naa la koo defaral lu ma bëgg mën na ma koo defaral ñu nekk te Amina sax du ko yëg ma wax lii li may réccu nag mooy booba xaw ma woon li xew mënoon naa ko enregistré wala ma jéem a wut preuve boo xamante ni ndax ay ay doomaraam lañ seen lépp dañ koy calculer aw ma benn preuve buy euh, firnde loolu mais Alberta moo wax loolu sama nopp ak làmminam ci la ñu kiiwee tëdd noonu ba suba Alberta ci la ñëwee tëdd si ñu tëdd noonu ba suba euh, Amina moom bi ñu demee gisaatuma ko ba ci suba si si la ñëw suñu suite fi ma fanaan man ak Alberta ñu ndekki dellu si Dakar jour boobu dañu waroon xëy sax voyager dem Maroc si lañ dellu see Dakar bi ñu ñëwee dakaar ñu toog coordonnateur bi ñëw ne ma yow Fatima yow yaa def li ñu li ñu wax yow yaa ko def euh, da nga toog ak autorité ay personnalité sëgg ci sa téléphone faale woo leen waxoo ak ñoom et ma ne ko ah man de comme ni ma ko waxee man ñooñu li ñu doon wax comprendre ma ko te effectivement sax maa ko def ndax nekkuma woon à moo tax ma sëgg ci sama téléphone di ko manipuler mu ne ah kon Alberta yow daal yow yaay nandite bi yow laa gëm de tourné ne Amina kon pas de voyage Amina ne ko waaw pas de voyage ndax man moom xale boo reewee xam naa fi ma lay xaaree booba maa ngi dagg samay cours ñëw ndax dañu wax sama yaay ne dañu war a xëy dem Maroc si laa si ne Tonette ne ko kon mën naa jël samay bagage dem ñibbi ndax suba dama am cours comme voyage moo ma fi indi woon te voyagé tuñu kon mën naa dellu Fatick ñu ne ma waaw boo fi toogee yow yaa fi bàyyi sa bopp problème bi foofu la tàmbalee ñu écarté ma faaleetuñu ma lijjanteetuñ ma comme ni mu koy waxee rek dama réew ndax moom moo toogoon fu nekk di ma défendre nekk man euh, dama yaru dama calme bokk na ci critères yi tax ñu jël ma et effectivement du du li may wax moo tax mais xam naa ni yar nañ ma fi ma fiñ ma war a yaree am naa respect ci nit et foofu la problème bi demee foofu la problème bi euh, démarré mi ngi noonu quant ak révélation bi sama yaay def aussi dëgg la comme ni mu ko waxee xaw ma lan moo xew xaw ma man ba tey xaw ma lan moo xew ndax dama ñibbisi di feebar di tëdd ko jóg feebar feebar yu ndaw yooyu bi ma njëkkee yóbbu comme ni ko sama yaay waxee ci interview bi dañ ne début fibrome la mu ngi noonu après par la suite si la ñuy jóg di daanu di dem hôpital ba après par la suite si lañ ne dama nekk en état ba maa ngi ci 4 mois mi ngi noonu fii nag Sénégal la ndax yaakaar naa ne sama saakar duma ci nekk dégg ci lu nekk ñu may saaga di ma xas lu nekk ñu wax ma ko ci may wëlbatikuwaat waat waxuma sax sama famille sama yaay samay mbokk waxuma sax ñooñu mais man may wëlbatiku waat di di joxe sama bopp pour di ëmb ñëpp di ma xamal noonu daal la demee mi ngi noonu fu mu nii dangay wax sax ba dangay fàtte doo xam lan nga war a wax et coow li bëri na instant yi li ma doon bañ yépp am na ndax sama dignité ñëpp xamal nañ ma looloo taxoon may nëbb mu ngi noonu nanguwuñ dem fenn ndax bi interview bi sama yaay def bi mu génnee rek suñu mbokk yëpp ñu ngi woote di dal suñu kaw naan waruñu woon a def interview bu dul dara ñu sàmm sama image ndax ëllëg war naa am famille et te aussi dëgg la man loolu laa ci doon daw ak coow li amoon sama saakri yëpp ndax dama siiw du miis bi ma gañe moo tax ma siiw mais wax ji bëri woon na miis bi dafa ñaaw dugg na fii génn na fii kon bu fekkoon ne lu bon moo ma tax a jóg wala damay def li may def ba leneen di ma ci fekk fii Sénégal la mënoon naa lijjanti dindi ko mais ndogal la bu ñëw sama kaw aussi man ma dem ba xam ni ndogalu yàlla la ma nangu ko toog ak sama dignité noppi et tout mais dafa am yoo xamante ni comme ni ma ko waxee ci début bi ndimbal na ci fekk loxol boroom ay nit duñu jóg di la xeexal nga toog noppi nekk sa coin te nga xam lépp ni mu demee doo wax loolu kese moo tax ma génn def interview bi mais man bu ma amoon lu ma gënal sax duma wax ndax li ma ci doon bañ mi ngi nii yëpp am na sama vie fu mu nekk nii dara laa ci bëggatul ndax début ba nii la demee woon